Ousmane Sonko képp koo xamante yaa ngi koy tuumaal ci jubati waxuloo dëgg ndax moom si bopp bëggulul leer moo tax mu jël ay engagement ba lépp loo xamante ne lu ko dal tey ci loolu pour bëggul leer moo tax mu dal ko bëgglu leer moo jël moo tax mu jël ay engagement ba am ak xaalis boo nit ay nit luubal tax mu bind pour bëgglu leer loolu noonu ñi nga xamante ne dañoo nekk ay bandi nekk ay wëyu yor seen presse état fay leen ñu koy tuumaal ñooñu waxuñu dëgg te ñoo ñoo doon tuumaal Serigne Saliou di ko sàllawlu ñoo fi tuumaal mun Mountakha bu yàggul ñoom gëmuñu si Ahmad Bamba dañu yàq loolu nag xam nañ leen ku si mel ni Madiambal Diagne mercenaire état bi la moo koy def loo ko dindiloo ngir yàq deram bañ na ko ki bokk si ñoom sax wax na ko tey si ci ci réseaux sociaux yi kon nañu bàyyi maanaam dañu bàyyi wax lu dëgg nañu bàyyi yàq doomu aadama yi ak di sos loolu yàlla def ko bañ mais koo xam ne gëmoo yàlla gëmoo yonante bi gëmoo si Ahmad Bamba di tuumaal xalifa général des mourides boo tuumaalee Ousmane Sonko ne yaakaar naa ne moom waru ko metti wasalaam <laughs>